xibaar yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci xibaaru midi ci seen télévision Almouridiya TV. xibaar yi li ci gën a fës euh, soxal réewum Sénégal mi nga xam ne démb ba léegi moo ngi dala euh, li nga xam ne moom mooy euh, conférence nationale jëm ci wàllum kon alam ngi di mbirum développement durable diirum ñetti fan kon ñu ciy waxtaanee xool nag naa li nga xam ne réewum Sénégal bokk na ko ci mbirum OND fan la ci toll jamono ji procès Hissène Habré mi nga xam ne kon randal nañ ko yóbbu ko ba ci juróom-ñaari fan ci weerum septembre ku moywul nag dina indi ay jafe yu bëri Eh, ci ñi nga xam ne daal am na ay engagement yoo xam ne jëloon nañ ko ci seen wàllum liggéey ñëw fii ci réew ma euh, Sénégal loolu suñ ci yokkee li nga xam ne kon moom mooy xibaaru bitim réew yi ca réew mii di euh, Royaume-Uni ca Angleterre foofu nag am na benn découverte boo xam ne gis nañ ko foofu di ay bindu téere alxuraan yoo xam ne daal nee nañ ci jamono yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ ko bindoon démb kon lañ ko gis ci benn université nekk ca Birmingham kon ca Angleterre. niñ ko junjee ci bopp xibaar yi ñu dooree ko ci mbirum wér-gu-yaram jàppale ne tey ci ngoon ci takkusaan si dineen amal li nga xam ne kon moom mooy tijjite juróom-ñaareelu salon euh, lii di SISDAC di salon international de la santé euh, lu jëm ci wàllum kon service euh, médical de Dakar Euh, ministre bi ñu dénk wàllu wérgu yaram di Awa Marie Coll Seck moo fas yéene kon jiitee xew-xew boobu niki tey ci ngoon muy amee kon ca Cissés ba ñaar fukki fan juróom ci weerum euh, juillet ñu fàttali ne ren nag réew mi di Côte d'Ivoire moom lañ prié ci li nga xam ne moom mooy ndaje boobu di invité euh, d'honneur niñ ko junjee sànq ci li nga xam ne kon moom mooy bopp xibaar yi ville et terre durable moom mooy ponk bi nga xam ne tànn nañ ko ci édition bu njëkk conférence nationale jëm ci wàllum développement ñu am njortes ne rek li nga xam ne kon moom mooy xew-xew boobu Sénégal dina ci def ay jéegu ñu teewlu ci reportage yu Abdoulaye Diagne édition bu njëkk bi ñu jagleel conférence bi nga xam ni dañ koo jublu ci li ñuy wax développement durable amoonoon nañ ko tey ci ndakaaru ngir mën a andi ay tontu ci sommet international bi nga xam ni dafa amoon ci wàllum environnement te ñu defoon ko ci réewum Brésil atum 2012 Sénégal bëgg na teg ay pexe ngir mën a xeex ak li ñuy wax changement climatique ak it mën a jot ay mébétam ci développement durable. bi président participé au sommet de Rio en dafa waxoon ne que chaque at dafay présider benn conférence lu ñu wax conférence nationale sur le développement durable donc ren ñu ngi soogay jëmmal loolu am ko muy première édition bi nekk ci affaire ville et territoire durable mooy ville naam collectivité locale yeeg euh, yeneen terroir yëpp nuñ koy def ba mu gën a durable c'est-à-dire dundin bi gën a suqalikoo ci ci anam yu gën a sell. développement durable di yokkate gu sax li ci jëkk mooy. ñu jaarale ko ci gox ak goxaat yi. waaye ñoom gox yi ak goxaan yi lan moo ci seen cër ak lu ci seen wàll. en fait euh, collectivité locale moom fa développement di commencé donc euh, bu ñu ne développement durable euh, dafa am lu bari lu mu ëmb. donc wàllu environnement wàllu économie wàllu sociale te acte trois ci loolu la jublu parce que dañ ne dañu bëgg ay commune yu collectivités locales yu viable yoo xam ne dañu mën a développement bi te teg nañu jéego yu bari ci fànn googu pour jàppale leen si ngir mën a waaj conférence bi nga xam ne àdduna gépp dañ koy séq ci wàllum développement durable bi nga xam ne moom moo war a am ca New York tey réewum Sénégal nar cee bokk ñi nga xam ne ñooy ay kilifa nee nañ war nañoo gën a baral jéego yi. Euh, nii dañ fi convoqué ñëpp ñuy ñi yëngatu ci wàll woowu pour que ku nekk ñu mën a sottante xalaat ba pare mën a valider ay documents yu important pour ñun mu nekk stratégie nationale développement durable nekk suñu politique nationale zone humide nekk également suñu profil communauté internationale bi dañoo wax nu ñu bëggee ni objectif du millénaire de développement meloon ni ñu bëggee euh, euh, dunduwaay askan bi mel ko ci at yi ñu jëm. dëgg la naam budget bi nga xam ne réewum Sénégal daf koy doxee am na ci xaaj boo xam ne dañ ko jagleel gox ak gox-goxaan yi. li ñuy wax PIB di wàllum yokkute gi tamit bëgg nañ fekk atum deux mille vingt ñu àgg téeméer boo jël juróom-ñaar. loolu moo gën a tax bu ñuy xalaat nañ xalaatee ci gox ak goxaani waaye bu ñuy jëfit nañ jëfee ci anam bu gën a yaatu jamono jooju nga xam ne kon ñoo ngi waxtaanee mbirum uh, alam bi ak uh, li nga xam ne kon uh, moom mooy dund bu yàgg ci dëkkuwaay yi gis nañ ne daal réew réewum taax bi di Ndakaaru wala diwaan bi di Ndakaaru li nga xam ne moom mooy alam ba ñu bëri dañ koy yàq ndax li nga xam ne moom mooy mbedd ya foo dañ faa jàll li nga xam ne moom mooy ay anu mbalit ñu def ko turukaay mbalit wala li nga xam ne sax moom mooy miir ya ñu ciy def loo xam ne xeetawul ak mbir moom loolu nag lu bari ci askan wi ñaawlu na ko gis ne war nañoo changer lii di ab doxalin ñu teewlu ci reportage yu Cheikh Sall. lu baax la waaye bañ a tilimal de moo gën léebu gi daanoon na ci ndoddul képp koo xam ni mu ngi wéy di ñagasal alam bi ba sax coppi dunduk ñi nga xam ne ñooy dund ci capitalu senegal doxantu si mbeddi Ndakaaru moo tee gis ci autoroute yi autoroute à yi ba sax carrefour yi nga xam ne ñoo taxaw ne Ndakaaru mu ngi nuru sax ne ab sën. des fois nga gis taf yoo xam ne ci nga def ci mbind moo xam si ci tegg niwut ndax lu ko kilifa gu mag nga ñëw yor sa bic wala yor sa peinture ñëw dessiné ko ci miir bi ci bu subaa bu ñëwee gis ki fay taxaw di tuur ndox. li may gën a jaaxal si dëkk bi mooy moom naqari na ñëpp du man kese la naqari parce que jëm si wàllu tali bi parce que parfois boo dee dawal da ngay gis panneaux yi dañ ci taf ay publicité yoo xamante ne nii. jaaduwut doo xam fii nga war a jaar xamoo gauche ngay jaar xamuloo droite ngay jaar. ci mbeddi Ndakaaru yi foo wëlbatiku yaa ngi gis ñu taf fa wala ñu bind fa ay baat ba sax ci wet yi ñu fay tuur ay mbalit lii de li ci gën a yéeme moo di benn bërëb bàyyiwuñu ko. dangay daw ci tali bi yàgg nga gis nit jël benn morso walla mbuus wala bidon naan ci ba pare sànni ko loolu aussi lu mën a ñàkk la aussi mbali mi nekk ci mbedd bi yëpp nit ko fi sànni. su fekkoon dañ koy jël ba fekkee na utiliser nga ko ba pare nga jël ko denc ko bu àgg fenn nga sànni ko kon du salte da ngay dox ba yàgg sax oto ne la paccax romb la yàq sa yére yi nga sol lépp ndax fausse perte yee koy def wala nga ubbi sa foos mu nga war ko wide wide woo ko nga ñëw mu fees nga ubbi sab kii bàyyi mu tuuru ci digg tali bi ku fa romb sa yére yàqu. kon alam bi moom ñagas na ba noppi suñuy bët it mënta gisati rafetaayu alam bi ndaxte saafara mën naa judd si biir jàngoro. non saafara gi moom lenn rek la kenn ku nekk xam li nga war a def nga di ko def jaar si yoon parce que àdduna bi moom ñëpp a yem kenn ku nekk war ngaa mën a xool lii soo ko defee mu jëm kanam. taal ay ponu ka ngi ci wax ne dajale ponu ba mu bari ci koñam mu taal ko waaye ba yenn heure yi mu ko ne heure guddi moo ko taalee xëy na coow du jub mu di koy taal mu jëmale bu kenn xamut. ñàkkul ne sax def ngeen seddo bi te seen kàddu yëggut ngir ngeen waxe ko. mbind yi ñuy bind si miir yi daf ñuy agressé. ñiy def affiche yëpp am na fu ñu jógee c'est loolu bu amee rek dañoo war a dem si ñi ko def ñi ñi leen jox ndigal pour ñu def loolu parce que loolu moom saafara ko lu yomb la. panneau publicité itam ah xëy na seen njaay tax ñu koy def ak pour lu siiwal seen jëf waaye nag ak nañ koy war a defee dafa rafet. ñu defal ko bu mu xam ne si ku ko gis tey na ah lii de moom wax di yàlla yenoon a maanaa waaye nag duñ koy xool loolu lépp day ñëw defal seen bande annonce rek daal di ñëw def seen table publicité daal di def mu leen neexee. kon nag laaj ba samp na ndax te war naa jib baatub Sénégal émergent si réew mu mel ni Sénégal boo xamante ni bii respecté wuñu nekkini doomi aadama yi ba sax respecté wuñu nekkinu aalam bi. ñu addu bi yoon wax ci mbirum SYNPICS mi di kuréel bi nga xam ne kon moom moo ëmb taskatu xibaar yi moom nag fanweeri fan ak benn ci weerum juillet ji ñu dëgmal euh, kon ci li nga xam ne moom mooy ayubés bi ñu dem euh, di aljuma fas yéene na amal ab dox ñaxtu bu mag kon ca place de l'obélisque jëm ba buntu RTS ñoom taskatu xibaar yooyu li ñuy ñaawlu rek moom mooy xoqatal bi nga xam ne nguur gi moo ngi koy xoqatal euh, lii di journaliste di taskatu xibaar yi ñoom tamit ñoo ngi sàkku nu mu gën a gaawee ñu wootee li nga xam ne moom mooy code de la presse bu bees bi ca assemblée nationale ñu àddu wax ci lii di procès Hissène Habré euh, xam ngeen ne euh, dàq nañ ko ba juróom-ñaari fan euh, ci weerum septembre démb nag li nga xam ne moom mooy ministre de la communication réew moom moo ngi ci doon daje ak taskatu xibaar yi moom li muy sàkku rek moo jëm ci li nga xam ne kon moom mooy liñ tuumal ne Hissène lii di Idriss Déby jamono ji nekk njiitu réew bu senegal njiitu réew bu Tchad ñu jégalu bokkoon na ci li nga xam ne moom mooy euh, mbir moomu loolu nag ñoom euh, dàq nañ ko du ñàkk ci suñuy xibaar yi ñu ñëwaat ci ak Abdoulaye Diagne mi teewe woon ndaje boobu ci mbir moom ay ONG yoo xam ne kon addu nañ ci randal bi ñu randal procès boobu ndax gis nañ ne daal ñoom jëloon nañ ay engagement euh, jëlee ay victimes ca caat indi leen fii te toxal bi ñu ko toxal mun na lu indil ay gàllankoor ci seen wàllum liggéey ak koppar yi ñuy dépensé ci loolu ñu déglu ci Rit Brody moom mooy conseiller juridique bu Roman Watch suñu teewlu ko ci micro Abdoulaye Diagne mi firi ay kàddoom ci wolof Bon, vous savez que les victimes se battent depuis 25 ans euh, pour amener Issenabré à la justice. Euh, xam ngeen ni ñi nga xam ni dañoo euh, am ñu dee ñi dañoo am gaañu gaañu ñi dañoo am ay lor ñoom ñëpp nekkul ni weer ak fukki fan ak juróom ñooy tax ba ñu changé pas-pas bi ñu amoon ci àtte Hissène Habré ndax Hissène Habré dafa jàpp ay junni doomi Tchad tëj leen ci kaso bi ñi amuñu procès ñi amuñu avocat ñi àttewuñu leen kon loolu euh, temps bu mu war a jël rek ñun dinañ ko jël ngir mën a sàmm àq ak yelleefu doomu aadama yi dëgg la sax metti na waaye du 45 jours mooy tax ñu xàddi te it comme que procès bi tamit li ci laal dafa jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama Hissène Habré tamit war nañ ko mën a may mu sàmm àqam ak yelleefu doomu aadamam ba ñu ko war a aar xam lan lañ ko war a jàppale ngir mën ko aar ci wàllum perte ci wàllum koom-koom su ma ko doon xayma mën naa ni ñu bari dinañ ci perte ndax ñun dañoo jël ay ONG jël ay militants am na ñeent ci victimes yi ñoo xam ni ñun ñoo leen fi andi loolu yëpp frais yëpp ñu jëlal leen ko fayal leen ko dañ ciy perte daal boo ko doon xayma ci xaalis millions ak juróom de de de militants euh, il y a aussi euh, quatre victimes qui sont euh, venues depuis le Tchad. Euh, nous estimons que les militants, les ONG, les plus les avocats des partis civils, ce serait à peu près 40 ci mbir moom ba léegi ci procès Hissène Habré euh, lan moo ci lan taxawaayu li nga xam ne moom mooy ONG yi sàkk kon ñu àtte ki nga xam ne moom mooy Hissène Habré ndéem ONG yooyu sax euh, dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllum àq ak wareefu doomu aadama waaye liñ sempi rek Hissène Habré euh, fas ne ko àtte te jamono ci àdduna si am na ñoo xam ne tamit def nañ ay jëye ñu mel noonu waaye boobu ba léegi kenn laalu leen ndax kon li nga xam ne moom mooy procès bi ñuy teg ci bopp kii di Hissène nekkul ab procès bu jeng ñu teewlu ci jàngatu Birane Diop. ñaar fukki fan ci weeru juillet 2015 bi ñu nekk Afrique mënatu ko fàtte ci lu jëm ci wàllu justice pénale internationale bi nga xam ne mooy topp ñi nga xam ne ñoo fi jiite woon am réew def ay ñaawteef ci seen askan. loolu moo taxoon ba cour pénale internationale ñu sos ko. waaye africain yi mosuñu ci ànd bu nu xoolee ni nga xamee ne noonu lay doxale ci diggante nit ñu weex ak nit ñu ñuul ñi bis bii di ñaar fukki fan ci weeru juillet 2015 nekk na loo xam ne wane na bu baax a baax doole ji nga xam ne organisation non gouvernementale am na ko ci réew yu néew doole yi te li ci ëpp nekk fii ci biir Afrique loolu moo waral ba ñuy laaj procès bii di procès Hissène Habré kan moo ci ëpple lu muy am boo xoolee mbégte mi nga xam ne ñi àtte am nañ ko ak avocat yi organisation non gouvernementale yi mën nañu wax ne àtteb Hissène Habré bii di am fii ci Ndakaaru ñi ñu wax ne ñoom la lor amuñ ci ngañaay wala sax duñ ci jële lu bari donte Habré moom kenn mënu ko setal bon boog kan mooy gagné ci procès bii bu nu dégloo li nga xam ne procureur spécial bu chambre africaine extraordinaire yi wax kii di Mbacké Fall nee na kii di Hissène Habré mënees na ko tëj fanweeri at wala sax ak giir dundam bu dee liñ koy tuumaal moo ko def ci loolu sax ñi nga xam ne ñooy victime yi mën na laaj ndàmpaay kii di Hissène Habré waaye lan mooy dëgg dëgg dëgg dëgg ci slaayu procès bii bu nu xoolee ne ñi ko financé ñi ëpp ay tubaab lan jël lu toll ni six def ci te lépp rek ngir tëj seen Habré moo tax ñuy laajaat ndax lii du as atte soo xam ne dëgg la ko boo xoolee ñi nga xam ne ñoo ko séq dëgg dëgg dëgg mooy ñi ñu tuddee ay lobby te ñi fa nekkal di ay ONG jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy njiitu réew Afrique yi loolu mooy wax li koy firndeel mooy boo demee ci cour pénal international di CPI ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ñi ñuy topp ay africain wala sax ay président yoo xam ne fii ci Afrique lañ bàyyeekoo ñu mën caa ràññee Laurent Gbagbo Uhuru Kenyatta Charles Taylor Omar El Bashir waaye cour boobu di CPI ba mu sosoog léegi kenn rek la tuumaal gannaaw ba mu ko àttee ci 14 mars 2012 kooku mooy Thomas Lubanga procès abré bi mu ngi mel ni ONG yi bi ñu demee guerre gagné dañoo indaale alal yu bëree bëri ñu jële ko ci chef d'état yi nga xam ne nangu lu nu réew tubaab yu am doole yi loolu di indi aw déggin ne ONG yi ñoom duñu lenn lu jaas yi salaam yoo xam ne occidentaux yi dañ koy jëfandikoo ngir noot africain yi jaarale ko ci ay juridiction yoo xam ne dañ koy saxal wala ñu koy créer ci ay gox di leen topp ngir àtte leen kon fagaru jot na ndax procès bii di procès Hissène abré ab tàmbali rek la waaye yeneen chef d'état danañ ci topp ku mel ni Robert Mugabe mi nga xam ne bañkat la ak ñeneen ñu mel ni moom te bu nu xoolee ci àdduna bi ñu nekk ñaar ñi ëpp ñaawteef yi ñu def ci doomu aadama yi lor ay junni junni bakkan doomu aadama ñii la George Bush ak Ariel Sharon waaye ñooñu kat ñi ngi tëdd seen jàmm comme ñu mësta def dara moo tax ñuy laaj ndax justice pénale internationale mën na am bu dee Amérique wala Chine wala Russie ñi nga xam ne ñoo nekk conseil de sécurité te ñoom ñooy toppaate ci CPI te bokku yi ndax mënees naa wax itam ne justice internationale am na bu dee abré rek moom la ñuy àtte tey bàyyi ki nga xam ne moo doon commandant en chef bu armée du nord bi ni xeex kii di gukki ni wadee bi ni jëlee réew mi moom moo nekk colonelu abre ba tey itam nekk conseiller ci wàllu kaaraangeem kooku tey mooy président réew ma moo jiite Tchad ñu gën koo xam ci turu Idriss Déby Itno bu dee dëgg dëgg dëgg justice dañ koo bëgg a def ngir dimbali ñi nga xam ne ñoom la après lor doxalin wi waroon naa demee neneen waaye bu ñu gisee organisation non gouvernementale yi di tëb di dal di wanewu ci rajo yi ak ci tele yi xel mënees naa ñaaw ndax kat ñoom li ëpp leen di tuumal mooy lu deret bari seen poos gën a diis li mooy kon euh, pàcc bu njëkk ci li nga xam ne moom mooy xibaar yi ngeen taaxir lu ñu ànd ak yéen ci xibaaru bitim réew yi xibaaru bitim réew yi ñaari ponk la ca Burundi ak ca Royaume-Uni ñu doore ko ca réew mii di euh, Burundi euh, foofu nag ginnaaw kon bi nga xamee ne amal nañ lii di élection présidentielle ci talaata ji ñu génn li nga xam ne kon moom mooy résultat provisoire yi di résultat yu njëkk yi kon ñoo ngi koy xaarandi euh, ci lii di aljuma ji ni ki ëllëg kon ki nga xam ne moom moo wax mbir moom moom mooy président commission Euh, national électoral bi moom moo joxe lii di xibaar yooyu euh, ñëwaat na tamit ci li nga xam ne moom mooy woote bi ñu doon euh, amal nee na nag lii di kon téeméer boo jël ci aw woote wootekat yi juróom-ñaar fukk jëm juróom-ñetti fukk demoon nañ woote ca bés ba waaye nag xibaar yooyu lii di ay observateur jóge ci bitim réew ñëwoon yër si li nga xam ne moom mooy jongante yooyu dàq nañ ko ndax nee nañ bisu talaata moom bëriwul ñu demoon ci bureau de vote yi ngir amal woot boobu ndax lu jege sax nee na nag lii di résultat yooyu du ko reconnaître te fan yi ñu dëgmal nam dinañ yëgluwaat ci réew ma ñu dem ca Royaume-Uni di Angleterre euh, foofu nag ab découverte dañ fa gis nag ay bindu téere alxuraan euh, yoo xam ne nag ci université Birmingham lañ ko fekk ci ay spécialistes ñoo xam ne seen xel màcc na ci mbir moom biñ di yëree nag lii di bind yooyu nee nañ téere yu boobu war naa am lu ëpp junni ak euh, ñetti téeméeri at am na sax benn spécialiste ci wàllum diine l'islam boo xam ne nee na njort ne daal ki bind loolu dund na ci jamonoy yonent bi Muhammad sallallahu nekk foofu ca Angleterre rafetlu nañ ko bu baax a baax war nañ ko exposé sax euh, foofu ngir jullit ñi mun a ñëw euh, tiim li nga xam ne moom mooy euh, téere boobu. ci xibaaru kon bitim réew yooyu la ñuy ndar képpe li nga xam ne kon moom mooy xibaaru midi di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen doon ànd ak seen télévision Al TV Eh, ci kanam tuuti bu fukki waxtu ak ñaar tegalee fanweeri simili di 12 h moo fi ñëw indi xibaar yi ci kàllaamay français eh, jaa jëf ñu yendook jàmm